baabun li ab bunt la suru yaa ci gént wat tataa ubi ak bëlbëli wal xutaasi ak tisli wala yi bi ak faye bi nard ci nard wa xëyriha ak kudul nard wa safi ak rawante bil xayli ci fas wa ram yi ak rawante ci sànni wa jongante ci sànni wa xëyri zalik ak lu loolu yooyu bunt bi bëgg dafay boole ay yëf yëf da wax ci mbirum gént wax ci bëlbël yeeg tisli ak faye nard ak lu mel ni shatranj rawante ci fas wala jongante ci sànni yi dama noonu ak lay lu mel ni mbott ak xorom na mu yëpp te ñoo ci biir xaala waxoon na rasulullah yonente bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ne arruya gént ga alxasanatu ga aji yiw waaye maanaam mooy rek ga aji dëggu mu ne rajulu tukkee ci waaja dafa wax waaja rek waaye jigéen tam ci la ak saalihi jee aji baax gis un ab xaaj lay doon min sittatin ci juróom benn wa arbaxina ak ñeen fukk gis an ci ay xaaj minam na boyati ci xam-xamu yonente hadis boobu daal ñoo xam ne ñoo umpale luñ ci jublu ba am na ñoo xam ne ñoo ngi ko firi am na daal mën ngaa jàpp ne leneen dafa bëgg wax ne waa ju baax bu géntee na xam ne kumpalañ ko yàlla woon te xam nga wane kumpa moom ci mbirum ak yonante la waaye nag na nga xam ne moom la wan kumpa ak yonante di dëgëre boo ci dem seet wan gi ñaan kumpa waa ju baax ji ci gént gi da nga soreeg moom lool ba mel ne xam-xam yonente bi boo ko defoon 46 maanaam juróom-benn fukk juróom-benn ci ay xaaj kon nii ñu wane waa ji baax ji ci gént gi benn xaaj ba nga la tolloo ci 46 yooyee nga xam ne xam-xam yonente bi moo am degré 46 ci ay degré léegi nag benn képp boo ko xaajoon daal 46 ci ay xaaj gént waa ji baax ji nañ ko ci wane kumpa benn xaaj la ci tolloo am nañu ko jàppe noonu man loolu des na ko dégg wala nga raa ku gént minkum ci yéen maa loo xam ne yekk dana ko sib fi manaamihi ci nelawam fa isa stayqaba ndem yeewu na fal yet ful na tifli xan yasaari ci walis càmmoñam talaata ñetti yoon wala yaqul te wax ne allahuma yow buur bi indi naka man ahoobu dana am suñu ko ci yow min charri maa ci ayo li nga xam ne raaytu gént naa ko fi manaami ci sama nelaw ay yaddara ni mooy lor fii diini ci sama diine wa duniyaay ak sama àdduna mu ne koo xam ne gént na loo xam ne nii dëgalu ko kon day tifli tifli yoo xam ne tuuti ci lor moo génn daanaka rek du am solo te tifli ñetti yoon daal maanaam tifli boo xam ne ay lor yu mag wala ndaw lay doon rek ci wetu càmmoñam dal di wax ñaan gi mooy suñ borom maa ngi ñaan nga musal ma ci ay lii nu gént bañ maa lor ci genn wàll bañ maa lor ci àdduna bañ maa lor ci bañ maa lor ci sa wàllu diine bañ maa lor ci sa wàllu àdduna léegi ñetteel lay doon yëpp ne mu wax ñaan googu waman tata aba ku bëlbëli fal yada na teg yadaxoo loxoom xalaa fii ci géeñam maanaam bu fekkee da ngaa bëlbël li ngay bëgg nga jël sa loxo teg ko ci sa gémmiñ dañu bàyyi sa gémmiñ ubbi ko rek wal loolu di yéey loolu tàmmuñ ko dañ wax ne bëlbëli moom mu ngi bàyyi ko benn mu bàyyi ko ci seytaane wala mu bàyyi ko ci biiram bu fees maanaam daal lekk ba nga xam ne biiram fees na ba mu taayeel ay masax yi am yonente mësta bëlbëli benn yoon waman xatasa kudis li fal yaqul na wax ne alhamdulillah waxalaa man war na ko nga xam ne samiha dégg na ko yaxmadu ñu sant allah yàlla ay yaqoola mu wax la xoo ñeel ko ne ko yarxama ko yàlla na la yërëm allahu yàlla way rabbi dana delloo alxaatisu aji tis li ja xale ci moom ne ko yaxfir yàlla na doolee jégal allahu yàlla la naa ñeel wala ko ñeel leen aw yaqulu la mu wax ne yahdikum yàlla na leen jubal allahu yàlla wa yuslifu te mu yooyu nag baalakum seen mbir dafa wax ne sopp nañ saa yoo dislee nga wax alhamdulillah ki nga xam ne dégg na la nga disli itam te daal nekk far yu kifaaya mu ndokkeel la ndokkeel gi nag mooy mu wax la yarhamukallah mbooloo na lu ca kenn ndokkeelee moom kenn bu kenn wax yarhamukallah rek baax na ñoo des moo ko dóor itam baax na waaye nag ñëpp sañ ñoo noot kenn mañ ko wax dara ndegam wax na yarhamukallah naan wax na alhamdulillah moom mu disli faaw mbooloo ki war na ko ci wax yarhamukallah su ko defee moom it si woon na ba ndokkeel ko wax ko yarhamukallah sopp na mu waxaat lii yaxfirullahu lana wa lakum wala yahdikumullahu wa yuslihu baalakum wala mu boole wax yaar yëpp sax benn yoon su ko defee nee nañu nag ñetti yoon bu ñu ko weesu maanaam bu fekkee ne tisli na nga ndokkeel ko mu tisliwaat nga ndokkeel ko mu tisliwaat nga ndokkeel ko su ko weesu xamal ne kon daa sopp say ba yem foofu say jël jël ndokkeelaat moom it su ko waxee ñetteelam say boom bàyyi jël jàll ci alhamdulilah ja wala ya joosu dagan allah yi bu fayee bi nar bi ci nar bi wala bi chatran ji du caagéene ci chatran ji ak nar bi ak ak chatran bi ay palañ yoo xam ne xeetu palañ yoo xam ne xoomoo la fi daañu ko wax dama yaatee njëdoo ay mel neen doonu ko dëgg-dëgg xam naa daal maanaam bu dee àndar da moom tubaab yi daañu ko wax b à joué d à joué daañu ko wax itam trick track trick track chatranjo itam chatranjo it moom daañu ko wax jeu jeu d'échec jeu d'échec bari daañu ko wax mel na nga ñoom ñaar sowom sax waaye defe naa daal loolu daal ba am ni ko waxee dama yeete moom la am déet waaye dañuy wax ne fooyee ne araam na ndax yonente bi dane ci addis ba man laa iba bi nar bi faqad xasallaaha wa rasulah ku fooyee nar bi moom yàlla yonente bi moo tax ñu wax ne ñoom ñu ko doon fooyee tefuñu ci benn teg boo xam ne ku ko ku ko jël ko dugatee araam satran gi dafa mel ne lañ ko jàpp nga xam ne moom itam sañu su koo fooyee wante tefuñ ci sax dugatee araam wala ba sa ayit a ñu fàttali rek ne mboolem xeeti pa yëpp yam te moo xam ne kenn ku day teg ku dàq jël ko moom carte lay doon ak nu mën di dikkee ci anam gu mën doon defe naa wax nañ ko yoon yoon wala ba sa ayit an yu sallama di def nuyu xalaa man ci ka nga xam ne yàlla xam ne dana foye bi xaa ci payoyu maanaam nga koo xam dana foye foye ayee boo ko robbee te fekkul mu di ko foye moo mën nga koo nuyu waaw jamono ko foye na moom des ko nuyu ndax am na yàlla kenn du ko ca nuyu wayu ko rafa def na si aljuna su toog ilaa man jëm ci koo xam ne yàlla xam ne dana foye bi xaa ci payoyu wa nazaru ak seetaan ilayhim ñoom ci ñoom maanaam nag ñii ñuy fooyee fooyee ay yooyu nga defa toog ak di leen seetaan moom ëpp naa def ndax day tax rek nii di maale la ci ñooña ndax yow koy def du matat seere te buñ la gisee nga defa toog di ko seetaan nag loolu daal jàpp ne kon yaa nga ca wala bas ayit bi saf ci rawante bil xayli ci ay fas wal ibili ak ay gëleem wa bi sihaami ak ci ay fett maanaam jongante maanaam course ci fas ak gëléem ak ak waa bi sihaami ak ci fett ya di ram yi ci sànni ga waa bi sihaami di ram yi ñoo ànd maanaam jongante ci sànni fett ñett yi moom nee na nees na koo def ba noppi teg ci ab teg ci kaw sart yi ñu bëgg wax ba ci dajee ku dàq jël teg ba nees naa course sax ci yeneen yi bokk taw yi ni ki mbaam wala bax la waaye su boobaa nga amul teg yéen a moom mën naa amul teg yéen la wax ñu moom fas ak gëléem ak jongante jëm ay fett moom bu fekkee sart yi ñuy wax dañ na ci teg mën na jaam wa in axrajaa ndéem génn nañu chey an dara jaxalaa ñu def bay na seen diggante mu xàllilan aji diggale yaaqul dana jël daalika loolee al mu xàllilu aji diggale ja in sabaqa ndéem raw na xoo moom ci boppam wa in sabaqa ndéem raw na xëy na ku dul moom it lam yekun du nekk xale yi di ko war chey an dara benn wax bu njëkk bi te moom ibnu musayab moo ko wax moo tax mu ne haada li xawlu ibnul musayab bi mooy wax ibnul musayab moom da
ibnul musayab moom daa wax ne ñaar ñi nga xam ne ñooy jongante ci course ba maanaam ba xam kuy raw bu fekkee boole nañ ci koo xam ne moom du teg dara kon ñoo ñaar kenn ku ne mën naa teg ñu ànd ak kookee nga xam ne tegut ñu dàqee ñoo ñett ku ci raw rek mën koo jël nga xam ne kon boole gañ ca boole ka nga xam ne moom tegut nga xam ne moom tegul waaye bu dàq yi jël dana maye kon ñoom ñaar ña teg itam ku ci dàq jël loolu daal loolu moom mosa yow wax waaye boo xoolee sara bi day wax naa ci kaw bu rawee te dama waxoon rek saa yoo xam ne moom kenn ku ne teg na teg te ñoom ñi nga xam ñoo teg teg ya ku ci raw jël lañ tegoon rek loolu carte la loolu nag dugg na fii ibnu musayew nag moom daa jàpp ne bañ ci doolee ki nga xam ne moom tegul dara rek war naa daganal loola waqaama wax na maalikun maalik ne innama yajuusu naka dana dagan an yuxrija bu génnee arrajulu waa ji sabaqan ab teg fa in sabaqa ndeem raw na xayruhu ku dul moom axadahu mu jël ko wa in sabaqa ndeem raw na xoo moom mi tegoon teg bi kaana kon bu nekk gilli fi ñeel ka nga xam ne yillihi dana sas ci moom minal mutasaabiqiina ci way rawante ña Maalik moom daa wax ne li tax looloo dagan daal mooy kenn dong moo génn ab teg moo xam nag day ànd ak keneen mu ñaareel ko wala mbooloo lu mu ci mën doon waaye na toll rek tegu teg léegi nag moom mu génn teg bi mu ànd ak ñooñee wala kookee daal di dàq ba xam ko ci raw su fekkee ne moom ci boppam moom moo raw du tax mu jël ko du tax mu jël teg bi ndax ci xas génn teg bi moom jeex na du ko moom mukk moom kon moom ci boppam bu rawee ka fis ci moom ca ñu ci des wala bu dee ñaar dong ka ci des ka nga xam ne rawut moom moo jël teg ba loolu moom moom la maalik wax ne li koy tax a dagan daal mooy loolu ki génn teg bi daal waaye waaye bu teg bi di ñëwaat ci moom mais dàqee moom te tegu ni nag ku ci raw daal di koy jël bu fekkee moom moo raw nag ka sës ci moom bu dee mbooloo ka sës ci moom jël teg ba wa indam yokkun ndeem amut xëyru jaahili sabaxi ku dul aji def teg ba wa aaxaru ak kaneen dong fa sabaqati raw jaahilu sabaxi aji def teg ba akalahu kon lekk ko man ka nga xam ne xabara teewe woon na daalika loolee ni maali waxe moom mooy bu fekkee ne moom mi def teg bi maanaam moom mi teg teg bi kenn képp la àndal ñuy dàqee xam nga bu fekkoon ne kookee ànd ak moom di dàqe moom moo raw kon moo jël teg ba waaye nag bu fekkee ne léegi moom mi nga xam ne moo defoon teg bi moo raw nag te wax ko ne ko yow kat bu mu teg bi di ñëwaat ci yow maanaam nekkoon sooy doon jox ko ñu teewe woon jongante ba mooy ñu teewe woon kursi ba sooy doon jox leen ko waaye moom mi nga xam ne deful teg bi waaye réewut mënu koo jël moom mi nga xam ne moo def teg bi te wax ko ne ko jël ci waat ci yow it loolaa tax du mën a dellu ci moom kon daal mën ngaa jàpp ne xeeti jongante yooyu bu ca teg dee am daal li ci ëpp aaye cay am li gën a yombal ci jongante boobu dagan daal mooy ab jaambur ñëw tegal leen nga xam ne yoonam nekku ca moom bokku ci ñuy jongante bàyyi nag ñay jongante ñoom koo ci xam ne jonga mooy koo ci xam ne yaa dàq rek daal di jël loola ñu loola mu leen tegalan waaw loolu daal moom moo gën gaaw ci yombal daal di daganal yu mel noonu wajaa ak dikk na fii naa ci li nga xam ne zahira feeñ na minal xayaati ci ay jaam bi madinati ci madina an tuzana bu dee fi yëgal leen maanaam bu dee fi xamal leen talaasan ñetti fan daa wax ne yonent bi daa waxam ci addis ba ne madina daa am ay jinne yoo xam ne dañoo tuub kon bu ngeen gisatee ci xeeti gaañ yi dara ci biir madina mu ngeen leen yëgal ñetti yoon muy ñetti fan yoon bu ne benn yoon daan wax naka na nga leen di yëgale ñoom jaan yi boo leen gisee bu fekkee def nga ko ñetti yoon moom jaan ja nag saa yu nekk nga wax ko loolu ñu lay bëgg a wax te gannaaw ba nga gisaat ko nag soo boo nga rey ko dafa mel ne na ko mu watta nettalee moom daa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa ida raaytum minha shay'an fa aadinuuhu talaasata ayaamin su fekkee daa bàyyi ko ci aadana yëgle na kon fa aadinuuhu lay doon bàyyi ko ci aadana digle na nag kon fa aadinuuhu lay doon fa in bada lakum baada dalika faqtuluuhu fa innama huwa shaytaanun waaw mu ne madina dafa am ay jinne yoo xam dañoo tuub boo gisatee ay jaan te xëy na mu doon jinne yooyoo tuub da ngeen leen di yëgal da ngeen leen di def li ñuy wax avertise muy da ngeen leen di tëkku maanaam daal mel ne ku leen dàkkaafu daal da ngeen leen di dàkkaafu da ngeen leen di dàkkaafu ñetti fan mooy bis bu ne benn yoon ñetti fan yi gannaaw ñetti fan yi nag boo leen gisaatee ak boo gisaatee jaan ja kon sa yoboo ngeen rey jaan ja te xam na ne kon seytaane la waaye du jinne ju tuub saraabe ci teg na nag wa sifatul istidaani ay yaqula in kunta tu'minu billahi wal yawmil aaxiri wa anta muslimun fala tadhhir lana xilaafal yawm xilaafal yawmi wa illa qatalnaak nga wax ne wax jaam ja waxanteel moom na ko su fekkee ne gëm nga yàlla gëm bis penc te di ab jullit kon dama la fa gisati gannaaw tey su ma la fa gisatee kat dinaa la rey loolu nga koy wax nag tegale ñetti fan nag bu nekk nga wax ko ko loolu dafa wa in foyi la ndeem defeef na daalika loolee fi xëyriha ci ludul madina foofu kon moom xasan aju rafet la waaw maanaam noonu nga def ak jaa noonu ñu digle ñu def ko jaan ya feeñ ci madina ah bu fekkee def nga ko geneen jaan ya feeñ ci dëkk bu bokkutal madina kon def nga la ñu sopp loolu la bëgg a wax ne rek bu fekkoon ne jaan yooyu nga wis ci beneen dëkk bokkut ak madina itam nga defee nee ñu waxee ci boo gisee jaan ci madina koy def nga la ñu sopp wala tu usani waaye defu leen yëgal nag mooy defu leen diisu mbaa deesu leen avertise fi saxraay ci àll ba wa yaqtalu def na rey rek maa la nga xam ne zoxara feeñ na mën xaa ci ñoom jaan yi nee na jaan joo gis ci àll ba nag da nga daal di gaaw rek rey ko ab dëkk yi lañ wax ak lay jaan ci àll ba moom rey rek amut jekk di ko yëgal naa ko ma fa gisateeg nangam ak nangam
way ko rafa def na ci xat fil xam ne way ay tooñ wal baraaqiis ak ay fel binnaari ci sawara nee na ay tooñ walay fel walay matt ak mboolem xeeti binaar yi ngir leen rey te rey leen ci sawara sib nañ ko dañuy jàpp ne ki bind sawara rek moo am sañ sañu mbugale ci sawara bu leen nag daa bari lool bu fekkee ne tooñ yi wala fel yi wala matt yi bari na bari waay yoo xam ne neexu tare léegi ci sawara rek noonu kon baax na kon sawara waree ko sawara dara neexu ci wala baax sa ayit incha allah jëm soob na yàlla incha allah ji li tax ñu wax ko moom maal di ci yeexal dara moo tax nag ngeen si ko incha allah waaye kon jàpp na ne ayit ba xat li nam li ci rew xorandoom ya ida adat doom war nañu wala ñu xabar te àttanee fat ala tarki xaaj seen a bàyyi wala lam taqutal doon te reewu fa leen kaana kon mu nekk ahab di gën a sopp ili naa jëm ci moom maalik nee na xorandoom bu fekkee dafa laa mat te mënoo koo muñ nga rey ko moom i taal fii yaakaar nañ loolu ayut waaye su fekk mën nañ ko bàyyi bañ ko rey mu defal loolu ban mu yëpp tamit def na rey alal sax unk unk moom daa bokk ci waram toog yi moom rey gi sax day am tuyaaba ñoo sopp sax rey gi rey gi dañ la ci bindal tuyaaba wala ko rafet def na si xat nit dafa di rey mbott yi mbott moom fekk amul loro nga di ko rey moom taamu ko ndax dañoo wax ne bokk na ci gën a bari mu ñu sabal yàlla bokk na ci gën a bari ci rey mu ñu sabal yàlla وقال وخون النبي يرنتي عليه السلام إن الله نقي الله أذهب دندنا عن كنشيين وحبية الجاهلية رجك ما يرنيا des na ba togg xubbiyata daañu ko mën a togg bi xubbiyata waaye prime moom man la doon ngaa rek lay firee wa faxraha ak seenu damu bil abaay ca bàyyi mu inin aji gëm rek la nekk taqiyim di aji ragal yàlla aw faajir wala saay saay chaqin bu aji texee di yonente bi dane na njëkk lislaam daan def di damoo seeni bàyyi seeni maam di ko puukaree loolu lislaam din na ko yàlla din na ko bi lislaam ñëwee léegi gëm yàlla ragal ko rek ci la ñu rawantee benn ko gëm yàlla ragal ko doon koy texe wala mu doon koo xam ragal ni yàlla daal di ñàkk a texe rek daal di ñàkk solo rek loolu rek fi nekk waaye foofu amatul beneen nekk damoo ci ak ak rëy ci jéem a jur jéem a jur daal ci teg ne antum yéen ñëpp banu aadama doomi aadama ngeen wa aadama te aadama min turabin mi ngi bàyyi ko ci suuf ñoom ñëpp ñu cosaanoo ci aadama te aadama suñu borom mu ngi ko sàkkee ci suuf waxaala waxoon annabi yonente yi alayhi salaam alayhi yàlla doole nekk ci asalaam doole yooyu fii rajo nañ ci waay taxala ma jëpp xam la woon na am saaban naa si askani nit ñi mu ne xel mun loolu di ab xam-xam la laayeen fa mu boobu di jëriñ wa jahaalatun te ak réeree nit laa taw duru di lor yonente bi waxoon na ci benn waay boo xam ne doon jàng askan wax naa dii diyee ko jël dii diyee ko jël di ko topp di ko topp ne yonente bi ne loolu de xam la goo xam ne mu jëriñ ci àdduna lu jëriñ ci àllaaxira ndax amul tuyaaba ah ñàkk koo xam ne du wàññi dara teel na goo xaala wax na xamaru xamar xamar nag moom nee na taxal la moo xam ne leen min ansaabikum ci seeni askan maa loo xam ne tas ci loolu dañoo mën a jokkee bi ci ci loolee arxaamakum seeni jegeñaale seeni mbokk alors nag nee na ndegam jokk bokk doon war te bala nga koo mën a jokk xam ko kon nee na say loo xam ci say bokk loo mën a jokkee bokk ndax loolu li santaane la waxaala wax na maalikum maalik ne wa akrahu dana sib ay ñu fax bu dee fi yëkkatee fi nisbati ci askan nga fii maa ci la nga xam ne xamul islaam yi nekk nag jëkkal islaam mu ne abaay ci ay baay Malik nee na man daal su ma sañoon buñ dee topp askan nit di wax ay bàyyi ak maamam ba àgg ca ka ci njëkk a tuut day yem ca kooku te dañ koo jàll di wax maam di nga xam ne yëfal la woon ne ma sañ loolu des ko def yàggee ci ka njëkk a tuut rek yem ca moom daal da loolu la gën a tàng day dëgg wax day dëgg waxaal na ci mbirum firi gént moo tax muy baamuwaat addis bale mooy bi nga tàmbalee woon bunt bi mooy waru yaa gént ak saalihut bu ayi yiw te am na xanaa bu ayi dëggu gisoon ab xaaj la ñu cité juróom benn waaru waxee naa ñoom fukk gisoon ci xaaj lu mu biir ci xam-xam yoonante tigéeyam dañ ko bañ ca tolloo da ko delloo ngir yoonu ci li nga teg ba tey wala nga àkku jant fi mën a yi ci nelaw maa loo xam ñekk dana ko sib falit fi ñetti fi xam ne saa yi fi gis ab càmmoñam falaa fi ñetti yoon wala taxawab te na waslu muy sori maa ci ay la nga xam ne raa gént na ko loolu te waxoon na ko da ko baawaar rek ba tey ngir loolu ci bëgg a teg lam ci bëgg a teg nag mooy wala yam mbax yi bi yàlla am na farsira bu firee ar yaa gént boo mën koo xam ne laayam na dépp xam li ko di ko ñeel bi xaa ci gént yi nee nag day araam bu fekkee ne xamoo gént nga di ko jéem a firi ndax xam nga ne nga xamoo ko bëgg firi wax loo mat li ñuy wax fen te xam nga ne fen lu araam la kon nag doo sañ a firi gént bi te xamoo ko wala yu xam bi xaa bu ko firee it xaw xëy bi ci ñëw wax yett fekk na moom xindafoo fa moom xaw na ko roofu nekk na luy sib ba tey nee na boo xamee lu gént ngay tekki fekk na moom du lépp du ay yiw du neex du ay yiw loolu ba ko firi ne ko ko lu baax bëggul ko neexee mbaabal muti mbaayo tax nga wax ko lu bëgg toll nga nga xam kooku ba tey yoon day araam ndax nga wax lu amul la ndax da nga xam ne moom du lu baax benn nga war a nopp rek ne ko yàlla yàlla def lu baax mbaa neen noo ko waxee rek bu bàyyi ko mu dem waaye boo ko fi demee lu baax te fekk na xam nga ne du moom suba waaye it nga def lu araam ndax wax lu amul rek la dañuy wax ne nag walaa yajuusu ta'biiruhaa bi mujarradi nazari fi kitaabi ta'biiri ka bni Siiriin لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان ولذلك جاء رجل إلى ابن الشيرين وقال له رأيت في النوم أني أؤذن فقال تسرق وتقطع يدك وسأله آخر عن مثل ذلك فقال تحج فوجد كل منهما ما فسره له به فقيل له ذلك فقال رأيت السين الأول قبيحة والسين الثاني حسنة dafa ne nag boo sañ a xool rek li wax ci téere gént yi xool ci daal firi ko ak gént gi maanaam kenn laali gént rek nga daal xool li ci téere wax ne boo génte na nga nangal la daal koy firi la noonu ndax nee na ay nit mën nañoo bokk leen luñ gént te du bokk maanaam gént lay yite ci kaw ka fa gént ak mbirum kee ak kee ak jamono jee kee gént ak jamono ji kee génte loolu moo tax dama la xool téere daal ko nangal la ndax nee na am na ko ñëwoon ci Ibnu Sirin ne ko man damaa gént di nellu ma ne ko yow da nga sàcc bañ dagg sa loxo kenn ñëw ne ko man damaa géntoon di nodd ma ne kon gént yi benn la ma ne ko yow da nga aji màkk te kenn ku ci nekk noonu mu ko waxee woon noonu la amee ñu ne ko waaw loolu mën naa mu ne damaa gis kee damaa gis ci kee màndargam baax gis ci kee màndargam bon mooy ki nit ki wax ñu sàcc bañ dagg loxoom ne ko yow nga gis màndargam bon la gis ci moom ki mu gis aju gi màndargam baax la gis ci moom wala ba sa ayit bi insha di chiari ci sa doy nee na wax wooyu yoo xam ne yaa ko woy wala keneen a ko woy ayut fekkee ne wooyu du wax ju aay ndax xam nga woy moom wax rek la yàlla dogalee muy wax ju aay di ki tam ku ñu war tagg mbaa xas ku ñu war a xas mbaa wax lu amut waa doon daal loolaa koy araamal waaye jëm yooyu kese rek moom noonu wax ko wax yaa ko wax wala keneen a ko wax ayut wamaa loo xam ne xaf fawof na mu ni chienri jooy ah sama ma gën a rafet waaye neen da nga koo bari da nga ko ëppal daal moo gën ndax nañu bañ wax moom boo fee lu ci ëpp tuuru mooy boo bu baree da nga wax wax loo xam ne woo koon wax watax walaa yam ndox yi du yàlla ay yëkk fira mu baril min fu ci way wala ma suux bi ak ci soxla woo bi ci moom bu fekkee woo jëmit ci jàngale diine wala laajee doomi aadama yi wax leen leen jëm daal fekkee jëmit ci loolu jëri baril ndax dañu doon boo ko barilee rek benn yaa ngi yàq sa jamono ci loo xam ne amul njëriñ mbaa nga wax ci loo xaale ci lu jaduwut wa awwal waloomi gën jaayey xam-xam ya wa afdaluha te gën ci ñoom wa aqrabuha te gën a jegeñ seen ilallahi jëm ci yàlla alal ma diine yi mooy xam diineem ji wa sharaihi ak ay yoonam mimmaa ci la nga xam ne amara digle na bi ca moom wa nahaate mu tere xan xoolis ko wa nahaate mu woote ilahi jëme ci moom wa xabba te mu ñaaxe wa te mu soññe alayhi ci moom fii kitaabi yi ci téeréem ba wa ala lisaani nabiyihi ak ci làmmiñu yonenteem ba wal fiqhu ak dégg nga fii daalika ci loolee wal fahmu ak dégg nga it fii ca moom wa tahammumu ak yittewoo bi rihaayatihi ci ak sàmmam wal amalu ak jëfe bi ci moom nee na nag xam-xam yi bi nga xam ne moo ci gën da nga war caa gën a sonn te moo la mën a gën a jegeñal yàlla mooy xam-xamu diine xam-xamu diine nag ba ci jëkk mooy xam-xamu tawxiid xam nga tawxiid moom ci ngay jàngee mu ngay gënee sa boroom teg ko fa nga ko war a teg dañu ko booleeg kenn mbaa lenn bu xam-xamu tawhid jàllee xam-xamu fiq bi nga xam ne moo lay jàngal li nga sant noo koy defee ak la nga sañ ak la nga sañut ba nga bañ a yees fa nga war a yem kooku mooy topp bu ko ñetteel na mooy xam-xamu tasawuf bi nga xam ne moo lay jàngal ni ngay sellale ba yàlla nangul la boole la ci jaamu ñu mu gërëm kon nag nee na daal xam-xamu dina boobu xam gëm yàlla xam la mu digle ak la mu tere te jaare ko ci yonante bi fexe ko dégg bu baax di góorgóorlu ci topp ko nee na loolu rek mooy xam-xamu jëfe te mooy li am njëriñ te ci la ñuy amee texe tey ëllëg wal xilmu xam-xam afdalul amaali moo gën jëf ya wa dañoo wax ne yaari cosaan yi mooy ñaari fondement yi mooy xam-xamu jëfe mooy yaar yi nga xam ne ñu gis ci àdduna ak alaxira ci lañ koy amee waaye nee xam-xam moo gën a tedd moo ëpp daraja ndax dama ne mooy fondement bi su fekkee ne xam-xam amut jëf du am ndax nit lu mu xamut mënu koo jëf nga xam ne kon léegi ñu ne fondement ak tabax boo amee fondement kese tabaxoo boole ci it du am solo kon ngay boole xam ak jëfe ko defee xam ne dama ne xam-xam bi mooy garab gi jëf gi te mooy meññet mi xam ne ba tey boo xamee gis te jëfewoo ko it ni ko alxuraan waxe dama ne rek mbaa mu saf ay téere la mu wax ca waa tawreet xam ba noppi jëfewoo ko day mel ne mbaa mu saf ay téere nga xam ne yor na ba am njëriñ waaye taxul mu jëfe ko taxul mu jëriñoo ko wa aqrabu lil ulamaai gën jaa jege ñi way xam ñi ilallahi jëm ci yàlla taxalaa kawe na wa awlaahum te gën jaa méngoo seen bi ci yàlla ak fere mooy gën jaa bari seen xaseen ci ragal la foo ñeel yàlla wa raxabatul ak ci xemmeem fii maa ci la nga xam ne xind foo nekk na fa moom nee na nag borom xam-xam yi kat rawanteeluñ ci xam-xam bu bari ba kese déedéet te nañ ragal yàlla ak nañu dëggee liggéey yàlla te jàpp ci yàlla kese neen loolu rek ci loolu ci lañu rawantee mooy jaam ñi rek ku ci gën a ragal yàlla rek dal ci gën ni suñu borom waxee ne inna akramakum indallahi atqaakum rek loolaay la wér wal xilmu xam-xam dalbu leen tegtal la ilal xayraati jëm ci nit ñi wa qaaidan te ajowamate la ilayha jëme ci nit ñi nee na xam-xam baax na lool ndax dalay tegtal lu baax loolu ma jëme ja waaye la ja u yéeru ila kitaabillahi jëm ci téeram yàlla bi xaswate dina jàll te mu màgg wa sunnati nabiyi ak sunu seenanteem bi wa tibaahi sabiilil mu'minina ak topp yoonu jullit ña wa xayril xureeni ak ngën ji maas ya man xayri ummatin ci ngën ji aw xeet axrajat woo génne fi kulli naas ñeel nit ñi najaatun ak mucc la wax ñu daa tàmbalee ci àlla joow daana si ci najaatun dafa wax ne wéeru ci alxuraan ak sunna topp fi mbooloom jullit ñi aw mooy li maase dogu ja te topp ci la nga xam ne moom la wonante beeg xeet yi sës ci moom maanaam xarnu ga sës ci moom ak ba ca toppaat mu ñetti xarnu yooyu xam ne ñoo gën ci nit ñi la ñu nekkoon nga jàpp ca loola ñun loolu daal ci la ñu amee mucc kon daal ci wàttal rek jàpp ca alxuraan ak sunna ak li yonante beeg gaa yu baax yi nekkoon daal loolu daal moo di am mucc ci la ñu amee mucc fafi marfusax yi nekk na ci buur ga buur dañ ko wax rek waaye mooy yéeru ilaa daalika jëm ci loolee alxismatu mucc ñoo yéeru ci loola ci la ñu amee mucc wa fi ittibaaxi salafi nekk na ci topp dawal ba asaalixi ba aji ñëw an najaatu mucc nee na topp saxaaba yaag ñi nga xam ne ñoo tàng ci ñoom mooy ñu topp saxaaba yi ñu topp ci ñoom ci la ñu amee mucc ndax ñoom dañoo tase jonante bi ñoom saxaaba yi tàng ca leer gaag xam nga jëfe ga moo tax ku roy ci ñoom rek ay roykaay la ñu waxum ci yow waxum te ñoom alqudratu ñooy roytee foo fii ta'yil ma ci taayil la nga xam ne ta'awwa loolu taayil nañu ko taayil mooy baat bi ñu dañ koo firi nañu firi ci zahir ngir am na tegtal bu sukkandikoo ba mën koo jàpp neneen ba tax mën naa wa ta'yilu sarfu lafzi an zahirihi bi dalilin boo wëlbatee baat bi dañ koo jàpp ne war a firi ci zahir ngir am fee sukkandikoo loolu mooy taayil te ta'yilu xawlihi alayhi salaam laa salaata li jaaril masjidi illa fil masjidi bi annal muraada laa salaata kaamilatan te yéen nee na mi ngi mel ne yonent bi waxoon ne koo xam ne dangaa dëkk jàkka ji doo am julli ci jàkka ja ñu bañ koo jàppee ni mu dikkee ci saaxir xanaa tawul ko ci ne daa bëgg wax ne balaa jullee mat dëgg dëgg waaw balaa mat dëgg dëgg na war a mate nga jullee ci jàkka ja loolu tawil la leen ne itam wastixraajuna ak sàkkoo génn la nga xam ne istam ba tooxu dal nañ ko manam génne nañ génne loolu xiyaas la ci jëmm ba tax naa wal istixraaju huwa al xiyaasu ka xiyaasihim xadda shurbil xamri ala xaddil xafri waaw loolu wax xiyaas mi ngi mel ne gétamu naan sàngara dañ ko natt rek dañ ko xiyaas rek ci gétamu paste def ko moom juróom def yar loolu xiyaas la kon nee na saxaaba yi ñooy suñu reyteef ci lu ñu tawil ak ñu ne moo tax ñu topp ca tawil boobu lu ñu dal woon lu ne maanaam luñ génne woon luñ xiyaasoon ba tey ñu topp ca xiyaas boobu wa isa xtalafoon ndee ñu yëte nañu fi feroon yi ca bànqaas ya bànqaas yi mooy atte yoon yi nga xam ne mën na aju ci xol mel ne yéene mën na aju ci cër mel ne jëfi njàpp yooyu loolu mooy bànqaas wal xawaadis ak xew-xew yi la yaxraj kon dee fi génn xan jamaahati walis mboole seen dafa wax ni saxaaba yi moom bu fekkee ne attey fiq yi am nañ ca luñ dëggu moom kenn xalaatuta bàyyi seen dëgg loolu maanaam lañ ba commencé kenn xalaatuta génn ca loola bu fekkee am nañu wéete itam boo xam ne bokkoo ci saxaaba yi doogi sama waxaat boolu wax mu waxu ñetteel maanaam mel na tey bu ñaari saxaaba yi wute woon kee wax lee kee wax lee cib atte loolu nga xam ne bokkoo ci saxaaba yi doo ci mën a sos boolu wax mu ñett te it léegi la ngay mën rek mooy jàpp ca bee mbaa nga jàpp ca bee waaye doo ci mën a sos beneen wax moo tax mu ne su fekkee wéete nañ ci xew-xew itam jësul génn ca seen wax yi yëpp yëpp waaye nag borom xam-xam yoon bu ñu wéetee rek dañuy daal di jàpp ne ku ñu teg borom xam-xam yërmaan rek la boo ca jàpp rek mu baax xam ne seen ngir boo wéetee rek moom soo roy ca boo ca looloo rek baax na ñu bari dañu jàpp ne nag léegi jamono yi moom ñu ngi mën a roy seen ngir daal mooy ñeenti ngir yi nga xam ne siiw na moom Maalik mi nga nekk ak moom Shaafi yi Abu Hanifa ak Ahmad ibn Hanbal yentee daal lañ gën a xam seeni ngir ñu gën a tas ci àdduna li nga xam ne am na ñeneen sax ñu ëgg sukkat ñu am ngir waaye ñoo ni seeni xalaat dafa tasul bu baax a baax ba nga mën koo sukkandikoo maa mën su caa xam ne leer la daanaka mën koo sukkandikoo moo tax ñaan ci daal daanaka ñu bari ci ñu yàpp ngir ci ñooñu la ñuy jàpp alhamdu xeeti cant yépp lillah aji sax la ñeel yàlla am na fi yàlla mi nga xam ne xadaanaa jidal nanu li may fa jëm ci taalif téere bi وما كنا تركنا وان نهتدي دي جب دي جندكو لولا ان هدانا بن كون nga xamni dund na Allah yalla dina ñu sant yalla nga xamni mom tawfiq tawfiq xala talif téré bi tax bu doon tawfiq mos du am xala wax na abu muhammad abu muhammad abdullah ibn abdullah ibn abi sayyid ko doon abi sayyid wax na ne xat atayna dik nanu xala ma ci la nga xamni sharat na shartoon nanu an na atiyani dikki bi ci mom fi kitabina ci sunu téré bi xala bi mimmaa ci la nga xam ne yan tafeex dana jëriñu bi ci moom insha doon soob na allahu yàlla man képp koo xam ne raxiba xeme moon na fi taalimi zalika ci xam ne loolee mën a sixaari ci gone yi wa man ak képp koo xam ne ihtaaja aajowoo na ili jëm ci moom wala kibaari ci mag yi nee lépp loo xam ne wax nañ ci njëlbeen ne moom lañ bëgg a indi ci téere bi nee loolu lépp indi nañ ko loolu danañ ci mën a jëriñu mag ñi it koo ci xam ne sa xam-xam soriwut ci téye nga ko it mën nga cee jëriñu وفيه نكنا كما ما لو خمني يؤدي بنا أجل الجاهل أجرير جه إلهي بما جمت خمنا وخمنا يعتقد ودنا كفص من دينه كدينه ويعمل تميجه به كما من فرائضه كفرتا ويفهم تمي خملة كثيرا وبري من أسان فقه كتسان فقه وفنانه أكبا غاسم ومن السنن أكي سنة والرغائب أكي خممتيف والآداب أكي تدين نانا وخدو يالا كي باخو يالا نغنيلم téere bi dina dimbale képp ku amul umpale ci sa diine dina la dimbale ba nga xam la nga war a gëm fas ko ci sa xol ak nga war a jëfe ci say cër dina la xamalaa itam yenn masala yu mag yi ci fiq ak yenn masala yu ndaw yi ci fiq dina la xamalaale itam yenn sunu yi dina la xamalaale raxaay bu ko jëm ci raxaay rek waaye wax ni ba tàyyi na la wala sa lana illa raxibatun waxidatun waxiya rakxabal fajri maanaam fiq maanaam moom benn raxiba la am moom moo koy jëm ci naa raxaay rek waaye benn raxiba la am ci fiq malik mooy ñaar raakay fajar raxiba mooy loo xam ne ki doon tëral yoon yi xemam loo na ko xel yi te defee nag moo féete kaw naafila kese maanaam sunna moo féete kaw raxibatu waaye raxibatu moo féete kaw naafila kese nee na yéen ànd naa ci yu bari ak teggin itam noonu xam teggin yoonu sax ci téere yi gis nga ko yépp nee na daal ñëw na ci téere bi te mën naa jëriñ ki xamut وانا من اسال ما من الله يا الله عز وجل وجل تمام ان ينفعنا مجرمنا واياك الله am bu am bu wax naa wa iyaaka yooyu képp kuy taxaw rek jàng téere bi ku dégg rek ci nga bokk am ñu day delloo ci bokku sëriñam moom doon waxal ci njëlbeenu téere ba mu koy taalif xam ne moo ko santal mu taalif téere bi mu naa sara bi fi ne mel ni yow xitaabu fi wa iyaaka li kulli waaqifin xalaa kitaabihi lima fi lxadiisi إذا دعوتم فعملوا فقبلوا أي حقيق أن يستجاب لكم أنا ما أنا دا جابني وياك كفي تهور يا موم نيب لي وخال ndax la hadith bane won mu ngeen ñaané na ngeen matale ñaan nga ndax kon dana yoy yalla na ñaan nga kon aneen fa xana mu doy no iyak ak yow bima ci la nga xamné Allah mana xamal na lako wa yu'inana tamli dimbali iyak ak yow xal xiyam ci taxaw bi xaq ci ak mom yalla fi ma ci la nga xamné kallafana tamb na mu jëfé ko neena maa ngi ñaan ñun ñëpp yàlla boole na ci li mu jot a xamal mu jëriñ lu ca dimbali na itam te nu taxaw temm ci jéem a matal àqam ak yàlla kenn mënu boobu te waaye nu taxaw ci kenn sama kàttan mooy li mu tomb mooy li mu sant ci ñu jëfe ko mu taxaw ci kenn kàttan doomi aadama wala xawla amul benn xeetu pexe buy teemoy wala quwata amul benn xeetu kàttan buy tax a topp illaa billahi dara mu nekk ci yàlla alxaali yàlla mi aji kawe alxafa mi aji màgg en yàlla rek nag wax nañ ko ba tàyyi moo am pexe man koo may jaam bi ba jaam bi du may yàlla rek moo am kàttan man koo may jaam bi ba jaam bi topp ko na yàlla gërëme na yàlla bëgge yàlla rek moo am pexe moo am kàttan jaam amu ko wasalla yàlla dool tedd nga allahu yàlla xala sayyid xala sayyidina ci sama sang muhammad muhammad nabiyi ka di yonanteem wa xala alihi ak ci ñoom wa sahabi ak ay sahabaam wa sallama tam dool leen woowu tasliman dolli woowu kafiram lu bari man fa tëjë téere bi julli ci yonent bi ak gaayam yëpp
foofu la ar risala yem képp koo xam ne déglu nga kaset yi loo ci jëriñu lu mu néew néew rek nga ñaanal ki nga xam ne moo ko doon jéem a def njëgal ak wërmaande ak mujj rafet yàlla defal ko ko te defal ko bokki taalibe yi defal ko bokki jubu yépp bi xadimal mustafa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa radiya xana wa nafaxana bihi amin
kon jàppal ni fiq malik fatiha mi ngi tàmboo ci alhamdu mboolam xeeti cant yépp lillahi aji lépp la ñeen yàlla rabbil alamina muy borom mi fi maanaam sun borom mooy ki nga xam ne cant goo mën di seet mu soxi ci moom bu bu dee cant gi mu bopp cant gi mu cant bopp ñu waxaale wuñ ko mel ni alhamdulilah alladi xalaqa samawati wal arda wa jaxala dulumati wan nuur bu dee cant boo xam ne yàllaa ko cant ab jaamam ni ki bu nee ni amal xabdu xamal ni lool ba tey ca dëgg-dëgg boo ko seetloo la daam la jaam ba def ba mu sant ko moom yàlla ca dëgg-dëgg moo ko def jaam ba def ko bu dee cant ko ko ab jaam sant waxaale wuñ ko xam nga ni jaam bi daa yor la ko yàlla defal te sant ko bu dee cant bu ab jaam cant moromam jaam nit xam nga ne boo ko seetlu lépp yàllaa def loola waaye du jàmm baa ko def bañ di ko sant kon xeeti cant yépp yàllaa ko yeewoo allahu mooy buur bu sell bi nga xam ne moo yeewoo jaamu ndax moom aajowoo jëm ci kenn te lépp aajowoo na jëm si ci moom rabbul alamin mooy ki nga xam ne mbindeef yépp moo leen sàkk lu amal moo ko amal lu weesu yàlla rek yàllaa ko amal mu di jaamam mais moom da nga nettali foofu xooloo nee leen maanaam bala ngaa teg alhamdulilahi da nga fi nettale xooloo wax leen ne alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani yàlla muy xéewal xéewal yi di ji arrahimi yàlla muy xéewal xéewal yi sew arrahman mooy yàlla muy xéewal yépp ci àdduna arrahim mooy yàlla muy xéewal ña ko soob ñam tawfiqale woon ngëm ci alaxira maliki yow mi diini muy bóorub bésub pay ba am nañu jàng maliki yow mi diini malik mooy aji moom malik mooy bóor dafa ne malik nag moo gën a doon aw tagg ndax boo doonee buur yaa moom lépp waaye nekk aji moom